asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki am média groupe Nourou Darayni bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam santa seexna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi albaaxil xadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala fayal na ko moo ngi ñaan seex Muhammadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool ba mu yéene liggéey lislaam ak njabootu lislaam mu àggale ko fu kawe njortam dellu santa suñu borom bu baax a baax bi mu may ñu dikkaat ci jataay bi fas yéene àndaat ak yéen ci sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati mu doon jataay boo xam ne jataay yu laayanti biir la waaye jataay yu fàttalente la euh, mu mel ni duñu deñ di fàttalente kom ci jataay jigéen ñi lañu wax jigéen ñi nag mun ko waxee jataayu jigéen ñi waaye jigéen ñi ak góor ñi ndax al muslimina wal muslimaati lañu wax waaye jigéen itam wa nekk ko war a farlu nekk ko war a farlu ci digganteem ak boroomam waaye digganteem ak sangam bi nga xam ne moom la ko suñu rom boole su fekkee ne am na boroom kër waxoon nañ ci jataay yi nga xam ne moo paase bokk na ci jigéen li gën a gaawe am ak texeem mooy ci boroom këram su fekkee boroom kër la boo xam ne boroom kër bu ragal yàlla la euh, mu farlu ci comme ni nga xamee ne noonu la bi waxee jigéen bu julee waxtu juróomam woor weeru kooram sàmm boppam topp borom këram su ñu tijjel ko bunti aljanna bu ko ci soob mu dal di loolu ama am solo la bokk na ci itam li nga xam ne sëriñ bi waxoon ko jigéen fokk ko borom këram gërëm yi suñu borom gërëm ko waaye bu ko xarabee suñu borom xarab ko waaye nag borom kër bi tax ñu wax mooy ki ragal yàlla tabaraka wa taala nga xam ne du la gërëm lenn ci lu suñu borom gërëmut waaye du la eh, xarab lenn ci lu suñu borom subhanahu wa taala xarab nekk lu jara bàyyi xel waaye lu mat a ràññee ndax du sukkandiku rek ci jigéen fu ko borom këram gërëm mu dem aljana eh, ndax am na ñoo xam ne seen bakkan lañ lay gërëmee mooy nga topp leen ci seen bakkan rek moo xam ne seen bakkan la bëgg safaan ba wala safaan wala leneen saa bu leen toppee ca lanu bëgg rek ak donte lanu bëgg safaanu ak bëgg-bëgg suñu borom subhanahu wa taala ñooñu nag buñ la gërëmee ci moom ngërëmul saytaan la waaye du ngërëmal ngërëm lu lay may aljana ndax laa taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq ci benn mbindeef koy topp ci loo ne ak mooy suñu borom la tabaraka wa taala góor ñi tam suñu borom subhanahu wa taala euh, waxoon leen ni leen bokk na ci li nga xam ni góor dina ko amee aljana mu commencé addina mu aljana euh, addunya mataa wa xayri mataaha almaratu saliha euh, bokk na ci li nga xam ne moo gën a seer moo gën a gànjaru te kan ne dana wax ne adduna marchandise na marchandise mi ci gën a seer mooy almaratu saliha mooy jigéen ju baax ndax jigéen ju baax mooy ki nga xam ne moo lay daf lay dimbali ci sa diine waaye dimbali ci sa dimbali la ci say bokk waaye dimbali la ci mbooleem li war sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala ndax bari waa na ku góor yaa fuse lool ci digganteem ak borom dafa amul rek diggante farlu waaye bari waa na góor goo xam ne dafa farlu lool ci digganteem ak borom dafa am jigéen ju baax ju farlu ju nekk ci wetam eh, di ko jàppale bu ñu demee ci njàngaleem si na ali karamallahu wajhahu am na wax na ne juróomi ngi yoo xam ne ci musiba yi àddina ci la bokk mel ni jataay bi passé am na juróom yu nu andi waaye yi yeneen juróom la yoo xam ne sidna Ali karamallahu wajhahu wax na ne juróoma ngi yoo xam ne ci musiba yi àddina ci la bokk mel ni juróom yi nu andi woon bi passé moo juróom yi nga xam ne ci musiba yi alaxira ci musiba yi ëllëg yow man xiyaam ci la bokk nga xam ne bu ci dar rek ëllëg yow man xiyaam mën na la indil musiba waaye juróom yi ci musiba yi àddina la bokk muy lan muy bokk na ca soppi bu faatu am sa soppe nga sopp ko lool mu jikki jikki wala mu xëy rek faatu bokk na ci musiba yi waaye bokk na ci musiba yi àddina mooy am sa alal nga liggéey ko mu jikki jikki alal de sànku zahabul maal loolu bokk na ci musiba yi àddina waaye bokk na ci musiba àdduna sab noon bu la ndokkeel mooy sa noon boo xam ne dafa la yéene musiba dal la ba xëy xëy musiba ma dal la loolu musi loolu musibam àddina la loolu bokk na ci musibam àddina itam tawat ju yàgg tuulu saxam mooy tawat feebar feebar bu yàgg loolu si na Ali karamallahu wajhu nee na bokk na ci musiba àddina waaye bokk na ci musiba àddina itam soxna su bon soxna su safaanu su safaana ni nga xam ne noonu la ko lislaam bëggee na loolu bokk na ci musibaay àddina kon juróom yooyu bokk na ci musibaay àddina sunu jataay bi nga xam ne moo paase woon noo ngi doon wax ci jullit bu góor bi ak jullit bu jigéen bi ni ñu mën a farloo ci diggante ak seen boroom waaye di taxawee farata yi waaye di taxawe sunna yi ak mustahabaat yi naka noonu dama jël sax farata waaye li nga xam ne dañuy wax ne sunna la wala mustahabu la mooy dañ ko sopp nga di ci farlu lool da ci mel ni julli da ci mel ni koor yi da ci mel ni saraxe ak la ko nuru loolu moo taxoon jataay bi passé passé moo ngi doon wax ci jullit bi mën a farlu ba di woor rek du yem ci woor woor weer wi nga xam ne weeru farata la mooy farata naam mun mënta ñàkk ci jullit bi mu woor ko su fekkee ne man na ko amul ci benn ngant mënta ñàkk ci moom woor ko waaye ne woor yi nga xam ne woor yi sunna la waaye woor yum sopp la mu farlu ci lool ndax loolu maanaam jëf na wala jëf luñ sopp day farlu day day firndeel jàmm bi bëgg gi mu bëgg borom ko wa la topp gi mu koy topp nga xam ne jaamu gi muy jaamu suñu borom bu saagee ne ko suñu borom ne ko suñu borom farataal ci moom digal ko moo tax waaye nag bu ko digal tam moom am na bëgg-bëgg. di jaamu suñu borom subhanahu wa taala ca nam ko ko diglee ak di ko jaamu ci guddi ak bëccëg yi ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ndax ki nga xam ne dafa farlu di woor koor yi nga xam ne nekkul farata wala mooy julli julli yi nga xam nekkul farata kooku moom dañuy wax ne kon kooku moom wala julli farata moom waxalis ko kon ki fonk naafile ci woor wala naafile ci julli kooku moom naafile ci eh, farata ci koor wala farata ci julli taxut ñuy wax loolu moo tax mu wax ne euh, ñu waxoon ci jëte bi passé Sëriñ Tuubaa nettali na noonu wax na ne imam Malik daf daan saxal di woor ci weer wu ne ñetti fan weer wun duggaa rek daana se woor ñetti fan euh, kon loolu bokk na ci firndeel jaam bi bëgg gi mu bëgg bëgg boromam ndax dañuy wax ne jaam yàlla euh, jaam yàlla dafa am ay xaaj dafa am koo xam ne day jaamu suñu borom subhanahu wa taala ni nga xam ne suñu borom wax na xaltu jinna wal insa illa liya'budun am ko xam ne day jaamu suñu borom euh, ragal sawara waaye bëgg a dem aljana am koo xam ne day jaamu suñu borom waaye bu suñu borom waxtaan ne ni ngeen ma jaamu tam tiwul mu jaamu ko bu suñu borom sakkutoon aljana sakkul sawara du tee mu jaamu ko day jaamu suñu borom ngir ngir màggu suñu borom gi rëyu suñu borom subhanahu wa taala ak tedd ngaam gi waaye xuulu ci leneen googu jaamu rek mooy jaamu gi gën a màgg ci jaamu yàlla yi kon ki xam ne moom li suñu borom ci moom ni koy def li nga xam ne faraatal farataalul ko ci moom mu am ak bëggeel ak ak cofeel ba xiir ca lool kooku day tekki ne moom bu suñu borom farataal tam ci moom jaam suñu borom itam moom dana ca teg ab tànkam ngir màggal suñu borom waaye ngir ngir e, tedd suñu borom subhanahu wa taala ak kàttanam gi akub sañ-sañam kon moo tax moo xam ne imam Malik daana saxal di woor weer wu ñetti fan kon loolu baax na jullit bu ci nekk rek nga farlu ci su fekkee ne man nga ko waaye nag bokk na ci di tuub jëm ci suñu borom subhanahu wa taala balaa dee dikk ndax tuub mënta ñàkk comme bàkkaar mënta ñàkk ci tuub gi mooy waral suñu borom jiggal bi euh, tuub gi mooy waral suñu borom subhanahu wa taala jiggal la bàkkaar bi loolu moo tax mu wax ne na ngeen di na ngeen di tuub jëm ci suñu borom subhanahu balaa dee jëw ndax alquran wax na ne dee saay bu dikk day bette Euh, ak ni nga xam noonu la ko sëñ bi leeral gën koo leen nga xam ne sa bari waa na mu dikki fekk la ci ay mébét ay mébét yu bari lool waaye nag mu jël sa kuro bàyyi la ak yooyu kon lu saay boo defee bàkkaar rek nga dal di koy tuub ca saase ñaan si moom subhanahu wa taala jigéen la waaye nag bokk na ci teral gan boo amee gan nanga ko teral comme xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni ngeen teral gan ku gëm yàlla gëm bis pinc ba na ngay teral gan waaye tam bokk na ci ni euh, nga xam ne itam waxoon na ko Sëriñ Tuubaa ne gan na ngeen koy teral donte gan gi ab faasix la ak rimoo dayfa walaw kaana faasixan ni ngeen teral gan donte ab faasix la indi woon tam itam xadis boobu nga xam ne euh, sahabatul kiram doonoo toogoon di bind alquran am benn arab yi benn kaw kaw bu jóge ci ñoom dikk ne leen wax ni gan mooy caabi aljana gan caabi aljana ñu ne ko waaw ñoo ngi ko dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne amul kenn aji gëm boo xam ne gan dana ko dikkal lu ni suñu borom daf ko booleeg ñaari malayka ñu koy bindal di ko faral tib boo xam ne gan nga tibb na ko fa xam yéen a nekk nag mu fekk gan goo xam ne gan gu gan gu sant ñing la wala wala neneen euh, suñ kom suñ kom laa ci jublu euh, yeneen ñi ngeen ñu baal mu mel ni kon euh, mu mel ni tib boo xam ne tib boo xam ne gan tibb na ko fa ne na suñu borom subhanahu ko ay daraja waaye faral ko ca ay aw ñawteef waaye bindal ko ca tuyaaba te bu gan nga delloo li feek diirub ñeent fukki fan deesut ko bindal bàkkaar kon gan lu ama am solo man kaan yuminu billahi wal yawmil axiri fal yuqul dayfahu ak akrimu dayfa walaw kaana fasixan loolu moo tax wax ne wa dayfa akrimu isa ataakumu wa akrimul karima isa wafakum bokk na ci teral koo xam ne euh, ku tedd la ku tedd la ngay teral ku tedd ndax waxuma la teral ku tedd sax waaye koo gis rek teral ko te jëm yàlla tax nga wekk ko teral ko jox ko ab cërëm bi nga xam ne moo tax suñu bind ko ndax euh, euh, ni nga xam ne noonu la Sëriñ wa waqir kabirhum walaw raaytahu daifan wa aqir mag moo gis moo xam yaa ngi sax yaa ngi xalaat ci moom tedd wala xalaatoo ci moom tedd nga nana nanga ko wekk donte danga ko gis mu xeebu lool doy lool mu tee nga jox ko ab cër wekk ko teral ko te jëmmi suñu borom wa taala tax waaye bokk na ci feeti feebar udu maridal muslimin lillahi suumu xayaatakum anil malaahi na ngeen di seeti ko tawat ndax seeti ko tawat dafa am solo lool ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di lim xaq yi nga xam ne dafa dox diggante jullit bi am ak moroomu jullitam mooy bu feebaree nga dem seeti ko seeti ga nag am na nu ko lislaam mooy boo koy seeti na nga ànd ak ak yar ànd ak teggin booy dem na nga ànd laab te boo demee bul fa waxtaan waxtaanu àddina bul fa wax waxi ku feebar bi ko dal ku feebar ba daloon mu faatu te bul fa yàgg loolu bokk nañ ci ki nga xam ne bëgg nañ ko ci muy seeti ko tawat waaye itam ngeen ñoŋal seeni seeni dundu ci moytandiku fo ak moytandiku caaxaan sunu xayaatakum anil malaahi miilu anil mazaahi wal fudul ngeen fexey ba ñoŋal seen dund gi ci am po ak caaxaan lépp loo xam ne am polo doo ca jële aw yiw doo ca jële tuyaaba doo ca jële lenn lu la jariñ ci àddina wala lu jariñ ci àllaaxira jariñ ci àddina mu ko mooy lu la jariñ ci sa ci dimbali ci sa wàllu diine moo tax ñuy wax waaye njariñal àddina rek bari wax looy yëngu di ci wut njariñal àddina loo xam ne àddina rek la yem te àddina yemul ci àddina rek waaye danga cay amee bàkkaar waaye li lay dimbali ci àddina li lay dimbil si diine moo tax ñuy wax kon sunu xaytakum anil malaahi na ngeen ñoŋal seen dund gi ci moytandiku fo waa ak di jëng jëm ci loo xam ne ay mbuurante la ak ndesit yoo xam ne lu mën a ñàkk la loolu ngeen wecceeku ci jikkiri li jikkiri wa tasbix wa tahliili ci tudd yàlla ak di sabal suñu borom subhanahu wa taala ak di wax la ilaha illa allah rasulullah ak la ci aju ndax baatu yi dafa bari aw yiw lool lu mel ni ak jikru mooy tudd yàlla tabaraka wa taala ak atasbix lu ci mel ni ki sàbbal suñu borom subhanahu wa taala li nekk ci aw yiw ak at-tahlil te mooy la ilaha illa allah li ci nekk ci aw yiw jàmm bi mënu koo mënu koo mënu koo xalam mënu koo takk kon na ngeen ma ngeen ñoŋal seen dund gi ci na ngeen ñoŋal seen dund gi ci moytandiku ay pox ak i caaxaan ak di jëng jëm ci ay mbuurante loo xam ne ak di jëng jëm ci ay ndesit yoo xam ne eh, yu ñàkk solo la ngeen weccoo ko ci tudd suñu borom subhanahu wa taala ak atasbih wa tahlil waaye bokk na ci sallu bi layli atimu taam afhus afsu salaama wasillul arham ngeen di julli guddi julli guddi nekk lu am solo loo xam ne li nekk ci ay ngëneel ni nga xamee ne noonu lañ waxee woon ci kooru ngàtt nga googu koor gi nga xam ne nekkul ci yow farata benn sunna la wala muy lu sopp waaye julli guddi nekk loo xam ne lu euh, lu am am solo la euh, bari aw yiw lool nga xam ne laajoon nañu saxaaba yi laajoon nañu lenn ci saxaaba yi laajoon nañu yoon bi alayhi salaatu wasalaam julli guddi ak julli yor yor lan moo ëpp doole nga xam ne julli yor yor rëy na lool bari na ab yoon lool bu ci nekk waaye lenn ci saxaaba yi laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko julli guddi ak julli yor yor lan mu ci ëpp doole mooy leen sarax bu nëbbu ak sarax bu feeñ lan moo ci doole kon ni sarax bu nëbbu ëppee doole sarax bu feeñ ne noonu la julli guddi ëppee doole julli yor yor ak julli yor yor la ci nekk ci ay ngeen waaye nag ni ngeen feeñal nuyoo di nuyo ni nga xamee ne noonu la alquran waxee isaa huyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsin minha aw ruduha nuyoo farata la nuyoo sunna la waaye delloo nuyoo farata la alquran ne ne bu leen seen mbokkum jullit nuyoo na ko fay nuyoo ba nan leen ko nuyoo wala nu gën a rafet mooy euh, mooy wa isaa huyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsin minha aw ruduha ki nga xam ne daf laa wax ne la asalaamaaleykum nee ko wa aleykum salaam wa rahmatullah bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nee ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bu la nee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu loolu mooy bi ahsani minha aw ruduha bi ahsani mooy bu la nee asalaamaaleykum nga ne ko aleykum salaam wa rahmatullah bu la nee asalaamaaleykum wa rahmatullah nga ne ko asalaam nga ne ko aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu loolu mooy ahsan aw ruddoxaa nag mooy mu ne asalaamaaleykum nga ne ko aleykum salaam rek yem si waaye nag lëggën mooy nga ne ko aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu loolu moo tax mu ne sallu bi layli atim wa taam afsu salaam wa arham joxe aw ñam waxoon nañ ci wax bari na aw yiw lool moom itam bokk na ci eh, xadis boobu ñu jàng léegi ci arab yu bi ñëwoon ci sax bi fekk ñuy bind alquran naka noonu benn tibu ñam bu lew nga yëkkatiku ngir jëm suñ borom subhanahu wa taala rekk tax nga jox ko jaamu suñ borom bu xiif ba lottu dana moo tabax junni juma kon joxe aw ñam li ci nekk ci aw yiw moo itam bari na lool waaye jokk ak bokku jokk ak bokk lu am am solo la moom itam loo xam ne lu mata bayi xel la moom jokk ak bokk Euh, kon loolu moo tax mu ne sallu bi layli at'imu taam afsu salaama wasilul arham nga xam ne boo ci taxaw rek man naa yaatu lool sax bu jël lu ëpp lu bari ci jataay bi mooy julli guddi ak jaxa aw ñam ak euh, nuyonte ak jokk ak bokk kon insha allahu taala foofu la ñuy taxaw ci sunu jataayu tey di ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal ñu ak digg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 alxaq min baatilin abdatu fujjaaru